waaw dañuy wax rek ni euh, maanaam processus bu gudd la parce que arène bi bi ñu ko waxee donc am na ñoo xam ni dañu occupé woon emprise bi maanaam fi nga xam ni sept hectares am euh, arène bi foofu lañ ko waroon a jëlee ñu tabax foofu du ma dellu si waat si euh, tabax si zone boo xam ni kenn waru fa tabax maanaam ñu koy tuddee zone non aedificandi mais ay sénégalais ñoo ko def xëy na biñ koy def xamuñu xëy na biñ koy def xam na xam nañu yàlla rek moo xam mais daal euh, bi ñu ñëwee 97 kër la ñu waroon a toj. waaw mais nag bi ñuy waxtaanee xam ni loolu day xaw a diis ñu waxtaan ak état bi waxtaan ak population yi waxtaan ak bon volonté yi donc ñu dem ba nga xam ni fukki kër ak ñeent la ñu toj tey jii donc moo nekkoon ci emprise bi ñuy fàttali rek ni ñeenti kër rek la si nit dëkkoon juróom ñeenti kenn dëkku fa woon kenn dëkku fa woon maanaam ay kër yu pareegul la woon ay fondation la woon donc loolu la ñu toj tey jii di xamale également que état bi itam nangu na jox ndàmpaay képp koo xam ni dañ doon dindi sa kër bu nekk ci emprise bi kon nag loolu moo wane tey jii que amul benn difficulté amul benn problème depuis sa matin ñi ngi toj donc y a de problème du tout comme ni ngeen ko ne constaté waaw. askan wi euh, amul benn jafe-jafe. non askan bi moom lay wax léegi c'est-à-dire que ñoom ndàmpaay lañ doon wax ku leen accompagner état bi accompagner na leen. bi ñuy ñëwee di toj presque ñëpp dem nañu ñëpp jël nañu seen bagage dem donc loolu mooy wane ni nangu nañu projet bi nangu nañu ànd ak état bi ci projet bi état bi aussi jàppale na leen ci investissement yi nga xam ni jotoon nañ ko def ci terrain bi maa nekkoon commission bi yoroon affaire kër yi au début euh, man maa nekkoon président bi ñoo nekkoon ak relation avec autorité yi ba tey lii daal di aboutir quoi. alors euh, Mamadou ndax man nga ñu wax euh, fan ngeen jaar parce que préfet expliqué na léegi. Mhm. ci commencement bi 97 maisons la woon. mais ci jeexital bi. fukk mhm. ak ñeent la. waaw parce que au bi ñu recensé woon ça fait 97 maisons la woon. ñu dem ak commission bi di waxtaan ak préfet ba dem ba wàññi ba mu des fukki kër ak ñett te ci biir fukki kër ak ñett yi ñetti nit euh, ñeenti kër rek lañ ci dëkk yi des yëpp ay fondement la ak ay kër yoo xam ne eggagul woon au début nag metti woon na parce que état bi nangul woon ñu fay si lañ nekk ak le préfet du département Pape Demba Diallo ak honorable député awaña ak monsieur le maire Abdoulaye Timbo ak Abdou Karim Sall ñu ñëw fi vraiment jàppale ñu si jël suñu yitte jëbal ko président de la république ba président recevoir ñu ba ne préfet nañ fexe nu ñu fayee ak Matar Ba kon tey loolu moo indi lii nii tey. alors euh, mënul wax démolition te duñu laaj euh, sommation ndax jot nañ ko. oui oui jot nañ sommation depuis le mois de janvier lañ jot sommation parce que tey ñu ngi ci mai kon presque cinq mois booba léegi lañ jotoon sommation parce que le 23 février bii la ñu waroon a toj ak négociation yi ak ministre bi ak le préfet ñu indi ko ba tey. ci mois de mais bi kon vraiment yaakaar naa ne am nañ lu mat 4 mois wala 5 mois yoo xam te ne nii sommation yi ñëw na. alors borom kër yi est-ce que euh, jox na leen. waay wax dëgg yàlla man maa ngi soog gis histoire Sénégal fu ñu ku ñu toj sa kër ngay woo préfet naan ko gaawal ñëw toj sama kër. maa ngi soo gis histoire Sénégal bu dee yéen yàgg ngeen dem ci démolition aussi tamit yéen a ngi soo gis démolition bu am amul benn coow ñi xam te ne ñooy occupants yi avant bi génn nañ ñëw ànd ak préfet soutenir ko ci li muy def kon je pense que loolu ñu ngi ciy sant di ci gërëm aussi di ci gërëm le président de la république parce que lii yëpp bu amee ginnaaw yàlla moom moo tax waaw jot nañ ko moom macha allah jot nañ ko yaakaar naa jot nañ ko bu baax a baax ñoom ñëpp jot nañ ci ñoom treize ku si nekk jot nga sa koppar bu baax a baax waaw loolu moom loolu moom am na moom incha allah ñoom ñëpp jot nañ seen euh, koppar bu baax a baax amul kenn ku ci jot non amul ñoom ñëpp a jot seen xaalis ñoom ñëpp a jot seen xaalis ku ci nekk chèque lañ la jox nga dem retirer sa xaalis ñëw yaag say mbokk vraiment nga kontaan waaw. chèque euh, xam nga rek biiru sénégalais yi mais xam naa ne c'est des centaines de million yoo xamante boo xoolee ruq bi fii ay jigéen ñoo si gën a bari ay jigéen yoo xam ni ñoom ñoo moom ñoom ñoo moom kër yi waaw jigéen yooyu nag eh, ñoo ñoom ñoo daan seen doole ñu jox leen kër yi man mii di wax ak yow nag man borom kër gi daf ma ko abal mun na naqari ma lool nag te bañ may génne tam dama génne xaw ma fan laajom jëm damaa jël samay bagage rek teg di xaar di xaar yàlla yàlla bi nga xam ne moom mooy buur waaw metti na trop. dégg nga taxul nag ñun ñu ñu ñu découragé parce que moom Macky moom moo fiy xale kon ñun lu mu mën a métti lu bu ko neexoon na ñëw ba mbaree ñu ñëpp mais bu soobee yàlla yonte bi moom la ñuy woteel sax pour mu gën a leer bokk ndax xale la waaw xale lañ soxla mais sonn nañu nañu dimbali waaye ñun am nañ ñoo xam ne si ñun ñi amuñu doole ñun amuñu doole dañoo yore njaboot yu bari amuñu doole amuñu dara luñ leen di defaral defaral ñu dimbali nit ñi. Tudo.